soppeem sëriñam bii mu toog dend ak moom. kon ñu di ko ziar moom tam. sëriñ bi sa soppe sa taalibe sa xarit nee na mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziar. mu jógee dëgmal Touba. nee na bu jógee dëgmal Touba. xam ne moom laa fi na xam ne yow la fiy fekk si Mbàkke Bàlla. sama xol day dal. nee na xolam day dal lool. parce que xam naa man sama bopp. nee na xam na ne moom ci boppam. cofeel gu jóge si man jëm si moom. nee na cofeel gi jóge ci moom la ministre de la santé jëm si jëw Sidi Balaysa. xam naa ne loolu moo jóge si moom ñëw na wóor ko ni cofeel googu moo jóge ci Mbàkke ñëw ci moom. ki ma yónni fii. nee na ki ko yónni fii. son excellence le président Macky Sall. le président de la République Alaaji Macky Sall. xam naa xolom si dëkk bu tedd bi. nee na xam na xolu président Macky Sall ak yéenam ci dëkk bu sell bu tell bii. lu ma ba nee na lépp lu ko président Macky Sall yónni ci Touba rek. sawar yàkkamti nee na da ciy sawar lool yàkkamti ji. sëñ président mu lay nuyu bu baax. monsieur le ministre nee na Cheikh ba Cheikh président Macky Sall lay nuyu bu baax Mbacke. nee na mu ngi lay siyaar. man woon boo ñëwee. daf ko waxan ni ko boo yeggee. na nga vérifier dispositif yëpp. ni ko na nga vérifier dispositif yëpp. vérifier lépp nekk na ci place. xool ndax mbooleem loo xam ne li ay jumtukaay la yu ñu war a jëfandikoo ndax lenn lenn lu ci nekk nekk na fa mu a nekk. parce que bésu tey bii. nee na bésu tey bii. dafa nekk ci contexte pandémie. nee na dafa tombe ak muy contexte su pandémie bii ni ñu koy wax coronavirus. ngeen def ci loo xamante ni. nee na sëriñ bi ngeen def ci loo xamante ni. adduna bépp gis nañ ko. adduna bépp gis nañu ko. jàpp ci. ba tey. ba tey. ñu ngi wax alhamdulilah. nee na ñu ngi sant yàlla bu baax. yàlla yàlla xeb dolli. nee na yàlla yàlla xeb dolli. bi ñu vérifié dispositif bi. nee na bi nga xamante ni vérifié na dispositif yëpp. li ñu defoon daaw. nee na li ñu defoon daaw. def nañ lu ko jéggi. nee na dañ koo doublé def lu ko fuuf Mbàkke. loolu la ñu président sant. nee na loolu la ko président Macky Sall sant. profité sa occasion bi. nee na mu profité ci occasion bi. gërëm bu baax. sëriñ bi sa xarit sa soppe sa taalibi ne mi ngi lay gërëm bu baax Abdoulaye Diouf Sarr. li nga defal service d'hygiène national. li nga defal service d'hygiène national. nee na li nga defal service d'hygiène national. da nga ñu waxoon. nee na da nga koo waxoon. di nga ñu may. di ñu may. fu ñu def siège service d'hygiène. fu ñu def siège service d'hygiène. fii ci Touba. fii ci Touba. def nga ko. sëriñ bi sa taalibe nee na def nga ko. incha allah nee na incha allah. ñun danañ jël budget bi. danañu jël budget bi. def ko si budget bi ñëw. nee na def ko ci budget bii dikk. ko loolu ñu ko réaliser. te nee na bu soobee yàlla incha allah danañ ko réaliser Mbàkke. loolu nag. nag. dafa nekk rek. dafa nekk rek. loo xamante ne. loo xamante ni. dëkk bi moo ko laaj. nee na dëkk bee ko laaj. ndax Touba. ndax Touba. tànk kanam rek la am. nee na Touba tànk kanam la am. ñëwee sëñ sang bi. nee na bi ñu seet si sëriñ bi. dem nañ sa hôpital ba. dem nañu ca hôpital ba. incha allah. nee na incha allah. bu samdee. bu samdee. président de la nee na président Macky Sall. dana jël caabi yi. dana jël caabi yi. teg ko si loxo sëñ bi. nee na teg ko ci loxol Serigne Mouhamadul Mountakha Bassir. bu ko defee. bu ko defee. disposition yëpp. nee na disposition yëpp. mu jël ko. mu jël ko. hôpital bi nag. hôpital bi nag. mën naa wax ne. nee na mën naa wax ni. ah man gis hôpital bu toll nii ak boo xamante ne spécialité yëpp ñi fa nekk. nee na moom day wax dëgg yàlla. ci Sénégal mosul gis ci Sénégal hôpital bu toll nii ak li nga xam ne ay xeeti spécialité la. ak i saal ak i jumtukaay yoo xam dañ koy faje doomu aadama nee na moom de mosu koo gis wax dëgg yàlla. loolu nag moom. nee na loolu nag sëriñ bi. ci seen vision la. nee na Mbàkke ci seen gis-gis ak seen dayoo la Mbàkke Balaye sa ndax nee na Touba. li muy polarisé. nee na li muy polarisé. moom méngóog. nee na loolu moom méngoo. ñu système de santé boo xamante nee na ñu def fi système de sante boo xam ni. système bu am solo la. système bu am solo la. profité si occasion bi. nee na muy profité ci occasion bi. di la yëgal ne sëñ bi. nee na di la yëgal ne sëñ bi. bi nga mujjee woo. bi nga ko mujjee woo. danga ma soññi si euh, demande bu Touba ca kanam defoon. nee na da nga ci demande boo xam ni Touba ca kanam ñoo ko defoon. pour ñu indi fi ñeenti sage-femme ak ñeenti infirmier. nee pour mu indi fi ñeenti sage-femme ak ñeenti infirmier. sànq vérifié naa ak docteur Ndeye Maguette. nee na vérifié na ko ak docteur Ndeye Maguette bee. ñooñu ñooñu disponible nañu. nee na ñooñu disponible nañu. ñooñu commencé liggéey ci poste na incha allah commencé liggéey ci poste de santé bi. loolu yaakaar naa ne. nee na loolu yaakaar na ni. mooy suñu cër. mooy cëram. xool lan dëkk bi laaj. ndax xool na li dëkk bi laaj. mu mu taxaw ci. may euh, dénk docteur Ndeye Maguette. nee na muy dénk docteur Ndeye Maguette. xam moom moo yore santé fii si euh, Touba. nee na moom mi nga xam ne moo yor santé fii ci Touba. mu accueillir structure de santé yooyu. Ndeye Maguette le ministre nee na nga accueillir mbooleem luy fajukaay yoo xam nekk na ci dëkk bu sell bu tedd bii. mooy structure de santé yoo xamante ne. nee na mu nekk fajukaay yoo xamante ni bii. waa Touba ca kanam. nee na waa Touba ca kanam. ko defar. dañu koo defar. jébbal ko système de santé bu Touba. ko système de santé bu Touba ca kanam. kon nag Ndeye kon day Maguette. sa njaboot ministre nee na ñooñu sa njaboot lañu bokk. nee na mu ngi lay encouragé bu baax. xam naa nag du ma du ma sori. nee na xam na ne nag du sori. fii ma ñëw. ndax fii mu ñëw. dama nee na fi la bokk de. moo nee na looloo tax. bu ma yo joxee yéene président ba pare. nee bu joxee yéene président Macky Sall ba pare. rendre nee na rendre compte que li nga xam ni moom la ko yebaloon ci mbiyeen Mbacke Balla. damay dellu rek tàllal loxo. nee dafay dellu président de na di ñaan Mbacke ngeen ñaanal président Macky Sall. ngeen ko mu yeggali ñaanal président Macky Sall mu yeggali yéeneem ci réew mi. yéeneem ci réew mi. yéeneem ci réew mi. jëm kanam. mooy Sénégal jëm ca kanam bu baax a baax. te seen ñaan. te seen ñaan. yaakaar naa ne. yaakaar na ni. lu am solo la lu am solo la ci eh, eh, ci jamono jii. kon nag bi maa ngi bi sa taalibe soppi ne mi ngi lay nuyu bu baax Mbacke Ball. feddali kóllëre ak yow. nee mu ngi feddali sa kóllëre ak moom. maa ngi feddaliwaat sama kóllëre ak mi ngi feddaliwaat sa kóllëre ak moom. nee na dana ko ñetteel mu ngi fedd liwaat sa kóllëre ak moom Mbacke Balaye si di nee na mu ngi gërëm. sama collaborateur yi ma nga xam ne ñoo ko gunge. di nuyu na nag di nuyu monsieur le maire Abdoulaye Kami di ko sant di ko gërëm. di remercier médecin chef région bi. nee na di remercier médecin chef région bi. docteur Mbaye nee na docteur Ndeye Maguette tudd na ko léegi. képp koo xamante ni. képp koo xamante ni. yaa ngi yaa ngi ci Touba. boo déggee ne maa ngi fi ñëw. soo déggee ne mi ngi fii ñëw. nga dagg sa yitte. nee na yéen ñëpp da dagg seen yitte. ñëw pour gunge ma si. ñëw gunge ko ci lii muy dox. maa ngi mi ngi sant ñëpp. ne Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la yaa ngi ñu nga àndal sëñ bi ne mi ngi leen di nuyu. ne ngi teg nuyoo bi ci loxo. ak mbooleem délégation bi nga àndal bépp ne ci gouverneur de la bu Diourbel ak préfet bu Mbacké ak sous préfet bu Ndaam ak docteur Dieng maître chef bu Lubb ak docteur Sourang mii ngeen àndal la xam ni ngeen bëgg a yóbbu ci hôpital bu bees bi te docteur Sourang kat maamam maamam ma àndoon ak sëñ Modou Moustapha bi ñuy lijjanti titre foncier Touba kon buñ ko ko joxaatee ne diggam ak Serigne Saliou ak diggam ak Cheikh Mamadou Mountakha mi ne yàgg na lool. ne dafa judd rek ne du diggante ba ne kon loolu ngeen def sëriñ bi bég na ci bu baax ne di nuyu docteur Makhtar Lo mi jiite Matlabul Fawzayni ak Ndeye Maguette Diop mi nga xam ni moo jiite wér gi yaram yi ci dëkk bi ak mboolem ñi ci des ñëpp ne Cheikh Abdoulaye Ka monsieur le dalal leen. kon ñu ngi lay yóbbanteem yooyu ci président mag Sall ci tànk yi nga doxal président tey ne Abdoulaye sëriñ bi ne mi ngi lay sant bu baax dina la gërëm ci sa taxawaay ak sa yitte loo xam lépp lu soxal dëkk bi buñ la ko waxee ne da nga ca def ba fa nga ca mën a yem wala nga weesu ko. ne loolu nag kon loo def ci dëkk bi rek ne Cheikh Mahamadul Muntaxa nga ko defal njabootug sëñ Bamba gépp nga ko defal ñee ñi ngi yeesalaat suñ digg ak yow ne amuñu lu dul dëkk bi amuñu lu dul njaboot geeg taalibe yi kon képp kuy dox seen yitte rek war nañ laa sant gërëm la ne hôpital bii kat bi mu yeexee tàmbali ne Cheikh mun Mountakha yónni ko ci yow. ne booba yàggagoo sax ci jotaay bi. mu woola waxtaan ci ak yow. ne nga def ci ay jéego yu rëy. ba liggéey bi mën a tàmbali. sëriñ bi ne loola kat du ko fàtte mukk. ne itte ji nga ko jox xam nañ ko. ñu ngi la ciy sant bu baax. ci sottee gii mu sottee ci say loxo. ak ci Matlabul Fawzayni bâtiment ba ngeen fa def ne loolu lépp sëriñ baa ngi la ciy sant bu baax a baax ne wér-gi-yaram moom mooy jiitu lépp kon ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla sunu borom kattanal la dëgëral la ndax xam na ni ñëw nga ci waxtu wu xat dikkee nga fu jafe waaye yàlla dimbali na la ci nag nee na ma la ko waxee woon fii daaw rek. ndimmal loolu la sunu borom dimbali yàlla na gën a yokk bu baax ba ca des tamit nag moo dayira Touba ca kanam dañoo liggéeyoon ay poste de santé jébbal ko sëriñ bi nee sëriñ bi wax leen lam ca xalaat nee ñoom lu ñuy def ndigalal sëriñ bi lañ koy defee nee ginnaaw gi itam. sa la ñu la bind leetar jébbal leen ko yow itam soññaat la ca la nga ca war na def nga def ko kon ñu ngi la ci sant ci turu sëriñ bi ne sëriñ Abdoulaat Mbakke moom sëñ Abibu mi ngi nii toog moo topp ci sëñ Abibu mu sëñ Fàllu mi ko jiite ñu ngi lay sant ci loolu bu baax ne waa service di seen itam nee bi mu la ko fàttalee léegi ci nga ko wax ni ko incha allah danaa fexe baat mii ñu defar ko ne loolu kon yittey dëkk bi la ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di la ci gërëm di la ñaanal daal nga rafet njort bu baax ne Serigne Touba lépp lu ko waay jëfal am nag pay te xam nañ sag farlu ci dëkk bi. ne mënoon nañ laa jox ndigal te doo ca farlu waaye lu jëm ci Touba dëkk bi ba nga ci toogee ba nëgë ni yaa ngi ci def sa jom di ci def sa yitte di ci def sa farlu ne looloo waral sax sama ak jàppam ci yow alhamdulilahi rabbil alamin ndax dafa xam sa farlu ci Touba alhamdulilahi rabbil alamin ne kon mi ngi lay sant bu baax a baax